Bon, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi et une joie pour moi d'être parmi vous. Je suis juste le partenaire de la Lonase et c'est vraiment une joie de voir que euh, vous êtes tous réunis ici pour un produit avec lequel euh, nous avons lancé avec la et pour lequel nous avons une, si belle réussite. Euh, je voulais féliciter nos, nos, trois gagnants, nos trois merveilleux gagnants qui ont gagné plus de, millions en moyenne chacun, c'est peut-être pas tous, mais euh, à peu près ce, ce niveau-là. Euh, je voulais féliciter tout le monde aussi, tout le parieur qui joue, parce que c'est important aussi, si on a des gagnants, c'est qu'on a des joueurs. Donc bravo à tous et merci à tous. Merci à l'équipe euh, commerciale, merci à la LONAS bien évidemment, mais surtout à l'équipe commerciale qui fait un, un excellent boulot sur le terrain et qui permet que le loto, le scène loto de jackpot soit une réussite. Je vous rappelle a changé la formule récemment. On est passé d'un 4,48 à un pour faire bénéficier justement nos parieurs d'un gain plus important. On est passé d'une cagnotte qui démarrait à 6 millions précédemment à 15 millions. On avait annoncé un gain minimum moyen, on va dire, plutôt que minimum, un gain moyen de 30 millions. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. On a trois gagnants aujourd'hui. On en est au quatrième ou au cinquième gagnant depuis la nouvelle formule, qui sont qui ont en moyenne une, une, trentaine de millions. Donc tout ce que fait la Lonase, un peu avec euh, l'aide de, de, Premier Bet et d'ITEC, se réalise aujourd'hui. Et, et, et, bravo à toute l'équipe, toute l'équipe de la Lonase, de la Lonase commerciale, du marketing et toutes les équipes sur le terrain et de la direction générale, bien évidemment. Et donc moi, je suis heureux aujourd'hui de, de voir que le loto, que nous avons lancé en 2018 maintenant est, une, est euh, commercial et un, un, et merci encore et bravo. que vous en profiterez bien et que vous aurez des magnifiques projets pour vous et votre Merci bien. Merci messieurs, dames. di nuyu suñu partenaires yi fi nekk notamment les premiers bêtes Editech nga xam di nuyu suñu direction yi fi nekk yëpp ak euh, presse bi di euh, beral nuyoo ak di félicité gagnant yi euh, am nañ tey ñetti gagnant seen loto jackpot kenn ki am 35 million kenn ki am 31 millions 500 keneen ki am 39 millions 300 muy 115 millions lu ëpp donc loolu benn ngoon l'ONAS joxe Euh, à trois gagnants trois cent quinze millions loolu am solo la donc day joxe preuve d'abord que LONASE mu ngi ci slogan am di euh, dugal loxo bu baax ci euh, développement économique et de la de la nation di jàppale secteur économie bi yëpp ak secteur sociaux yi mais également di gën saa su ne di jéem a jege ñi nga xam ne ñooy ay clients am muy les parieurs Euh, de de façon ultime donc ma ciy profité di féliciter ñi nga xam ne yàlla def nañu gagné di leen encourager di leen euh, ñaanal euh, lii jig leen ñu mën ci réaliser seeni projet di ñaan également yeneen parieurs ak partenaire Lonase yëpp ñu gën a jàpp parce que boo yàggee jàpp rek yàlla dina ubbi dina la ubbil xéwal comme nii nga xam ne defal nañ ne ko nit ñetti nit ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy fête tey donc di wax ne Lonase saa su nekk dafay jéem a euh, yokk effort yi muy def pour gën a satisfaire clientèle am ni seen loto jackpot 456 bi amee succès noonu la yeneen produit yi amee succès ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ci sant suñu partenaires yi di sant force de vente bi ak suñuy service waaye à côté du 456 nga xam ne dafa migré il trois mois mois de mars ba léegi nga xam ne ay satisfaction yu am solo lañ ci am ñu ngi waaj a lancé tamit 5,90 beneen forme loterie la comme 4,48 bi nañ ko commencé le 17 bi di ñëw euh, mardi ak suñu partenaire bi toujours premier bet Sénégal premier Sénégal boobu tamit ñuy ñaan ñëpp ñu jàpp ci. def ko seen yëf mu am même succès que 4,48 bi te ñu ngi ciy am yaakaar bu baax parce que lu ci war plan technique ak satisfaction client Lonase mu ngi koy def ak ay partenaires ak service am. beneen bi nga xam ne bëgg naa ko euh, terminer mooy xam ngeen ni Sénégal LONASE dafay jàppale secteur yëpp comme ni ma ko waxee di jàppale éducation bi di jàppale euh, santé bi di jàppale sport bi ak yeneen ak yeneen si sport bi gis ngeen ne ñu ngi jàppale làmb ji mais dañuy jàppale également euh, course hippique di jàppale football bi football bi xëy na moo ci gën a fës temps yi passé parce que gis ngeen fi ñu féete en tant que sponsor leader suñu équipe nationale gaynde yi football yi nga xam ne gagné nañu coupe Sénégal yëpp bég ci pendant depuis le mois de février pratiquement ci loolu nag moo tax LONASE wax ne pour gunge suñu gaynde yi nga xam ne dañu qualifié coupe du monde Qatar 2022 dañu bëgg organiser ak suñu plateforme bu bees bi di LONASE point bet également di profiter ak masse commune internationale nga xam ne lancer nañ ko euh, le 22 mars dañu bëgg a lancer benn jeu concours bu ñuy wooyee yoonu Qatar yoonu Qatar pour gunge suñu gaynde yi yoonu Qatar également pour permettre à tous les amoureux du football et à tous les supporters du de, de l'équipe nationale de football ñu am possibilité gagner ay billets pour mën a dem supporter ji suñu équipe bi au Qatar donc dina am à partir du mois de juin ay jeux yu ñuy lancer ku ci mën a participer à travers notre plateforme nga mën a nga participer chaque mois dañuy def tirage day am benn jeu pour point lonase.bet suñu plateforme bi am également benn jeu pour masse commune internationale bi nga xam ne tamit ñu ngi ciy am satisfaction weer bu nekk dina am ñaar ñu gagné donc ñu def ko juin def ko juillet def ko mois d'août donc dinañ am à peu près six gagnants yoo xam ne ku ci nekk Lonase da lay defal prise en charge complete maanaam dañ lay jox billet assurer le transport intérieur boo eggee Doha ak feneen foo mën a dem Qatar mais également jox la sa passe euh, ay ticket pour nga dugg stade jël la également en hébergement à l'hôtel de façon complète vraiment dans les meilleures conditions loolu pour ñun c'est une façon d'abord de renforcer notre partenariat avec la fédération sénégalaise mais également jàppale suñu gaynde yi jàppale ay supporters yi nga xam ne bëgg nañu fekke ji euh, jaloore équipe nationale boobu di ci euh, yaakaar tamit yàlla defal ñu ndam yoo xam ne mooy dàq bi ñu amoon ci Coupe d'Afrique bi passé donc loolu yëpp pour wax ne LONASE bés bu ne day jéem a innover ci yooyu la ñu gën a sonnale suñu service yi nañuy génne yu bees di présenter di proposer yu bees pour gën di wut bànneexu suñu partenaire donc loolu ñu ngi ci tey ñu ngi ci ëllëg ci turu directeur général bi ñu ngi ci tamit ak suñu collaboration ak suñu partenaires yi nga xam ne ki fi teew tey mooy premier Editec di leen euh, féliciter di leen remercier di remercier tamit suñu équipe yi fi nekk yëpp di remercier presse bi nga xam ne fu ñu leen woo ñu ñëw fësal suñuy activité tax ba ñëpp xam LONASE xam suñuy produit di remercier di féliciter encore une fois gagnant yi di ñaan yàlla yàlla defal leen xéewal si lii nga xam ne gagné nañ ko mais ubbil ay xéewal yeneen parieur nga xam ne ñu ngi liggéey ak LONASE maa ngi leen di gërëm leen sant.